sëñ bi maa ngi lay euh, nuyu bu baax di la wax ne maa ngi sant sama borom bu ma indee tey fii si kër sëñ Touba bu ma indee si kër sëñ Saliou Mbacké bu ma indee si kër sa wéjur bu tedd ba bu ma indee ma ñëw ba toog ak yow. war waxtaan ak yow loo xamante ne maag yow ñoo ko bokk maag yow ñoo bokk réew mi maag yow ñoo bokk ndakaaru mais xam naa ni tam maag yow ñoo bokk pas-pas si son excellence le président Macky Sall maa ngi lay remercier bu baax wax ko ko sànq sama ñëw fii du gulet 2014 ba may wut Yoff mënoon naa wax ne fii bokkul ci yoof mais dama xam ne yow mbokku fépp la mais acteur u fépp nga tam te da nga am njaboot Yoff moo tax euh, ma doxoon ba fii fi sëñ jiri toog laa toogoon nga ñëw ñu waxtaan comme ni ñu waxtaanee tey si ngor tënk ngir dénk ma njaboot gi nekk yoof ma doxe ko sama kilifa yónni na ma si sa kilifa keroog tam fii laa fekk ba bés ba jotee tam ñëw naa ñu bokk baas ba ba fajar bon de tey yaakaar naa ne prolongement wu loolu la parce que ñun li ñu gëm mooy que ne ki yore réew mi lépp loo xamante ne moom mooy mébétam pour defar réew mi rek bu amee soldat ñun ñooy premier ci soldaa yi moo tax li ñu dëgmal di xaar mu àddu si balaa booba ñu ñëw seet si la yow dugg nañ si nekk am na lu ñu tënk maa ngi lay remercier bu baax a baax a baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin parce que li ñu seex muy euh, dakaar ay xale ñoo fi ëpp comme ni ay xale ëppe si réew mi boo jëlee population réew mi mën naa wax ne téeméer bu nekk boo ne juróom-ñaar fukk yi xale lañ doon nag réew mi réew mu xale yi kuy investir na investir si xale yi nga ciy def liggéey bu wér a wér a wér topp si sa tànku wéjur ñu nag bu ñu nammee ëllëg ñu dénk ñu Dakar war nañu gëm ne taxawaay bi ñu war a am am nañu si jiitu di ko jàpp moo tax xale yi nekk na suñu préoccupation bu baax a baax a baax xale yi Sénégal si biir Sénégal xale yi Dakar bon li xamante ne danañ ko gën a creuser bañ fa tolloo maag yow mooy politique de ville ba ñu jëm lan moo ci place xale yi politique de ville bi gëm war ko présenter suñu président Macky Sall mu valider ko naka la ci xale yi amee wàll parce que ku xale yi rek taxawal leen taxawal nga réew mi dakaar nekk dëkk boo xamante ne dafa nekk dëkk ci dëkk yi mais dëkk boo xamante ne foo dem si àdduna bi rek boo ne dakaar ñu siggi xol bon nag dafa war a am dayoo boo xamante ne moom méngoo ak euh, dayoom loolu nag si lañu nangu dox mais wolof dafa wax ne benn lam du yëngu wax ne lu kenn man ñaare ko ko daax moo tax ñu jóg dem seeti bépp acteur boo xamante ne am nga vision si yëkkati dayoo dakaar ñu waxtaan ak moom dès maintenant may waxaat aussi alhamdulilah parce que xam naa ne yoon boobu du ma si wéet équipe bi ñuy teg te man ma nangu bu boobaa bu fekkente ne sama kilifa rafetlu na ko ma nekk capitaine d'équipe bi équipe boobu day équipe la boo xamante ne dafa nar a jaamu dakaar équipe la boo xamante ne dafa nar a repositionner dakaar équipe boo xamante ne Dakar rek mooy doon soxlam si biir Sénégal goo xamante ne Sénégal guy émergent lay doon moo tax ñu bañ a xaar dem seeti les acteurs parce que xam nañ lan nga boot li nga boot mooy lu si wéjur bu tedd ba bootoon moo tax liggéey boobu ñu door ko dès maintenant bëgg a def Dakar mu nekk la plus belle capitale au monde du monde parce que Dakar mérite na loolu li tax bu ñu sàgganee suñu dëkk dakaar mën na bañ yegg foofu mooy buñ ko joxee ñoo xamante ne dañu jël dakaar au lieu ñu liggéey ko mais di ko xeexee loolu tam danger la parce que Dakar képp ku ñu koy jox da koy bëgg ba pare nar ko liggéeyal. am pas-pas pour liggéeyal ko mais am na ñoo xam ne ñu ngi koy laaj mais dañ ko bëgg laaj pour jël ko di ko xeexe ñun nag en tant que Dakar waa ñu ne loolu Dakar weesu na foofu moo tax ñu bëgg vraiment un rassemblement très large force yëpp transcender les partis politiques transcender toutes les dynamiques ñu booloo pour que suñu Dakar nekk une capitale mondiale digne de son li ñu nar lépp pour dëkk boobu mën naa ba xajul ci waxtaanu tey bi tey dañ fi ñëw rek pour am lu ñu tënk maag yow loolu ñu tënk dem nañ ci néeg maak yow waxtaane ko incha allah bu jotee danañ ko doxe man nag li ma man rek mooy di la remercier bu baax di la gërëm gërëm boo xamante ne am na fu ma commencé te amul ab parce que saa yu ma ñëwee fii rek même nit ki laa fay fekk ku dal ku xam fu mu jëm ku baax te loolu mooy defar senegal man nga compter totalement ci sama engagement man nga compter totalement sama engagement may wax ne fépp foo am njaboot fii ci Dakar xamal ne njaboot googu njabootoo naa ko loolu laa ne woon danaa ko ci wax di remercier encore ñépp di wax ne liggéey bi du liggéey benn fan du liggéey ñaari fan liggéey tous les jours la parce que suñu dëkk bii di Dakar ci élection locale yi ñëw war nañu fexe ba Dakar waay yépp taxaw pour jox ko koo xamante ne dana yóbbu Dakar fu kawe kawe mu nekk capitale boo xamante ne day compétir avec les meilleures capitales au loolu mooy suñu pas-pas maa ngi leen di remercier bu baax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala jërëjëf